beral ñu visite pastorale bi mu tàmbale tey euh, monseigneur ñu ngi lay wéral ni suñu engagement yàgg nañu di ko wax di ko wax conseil yu bari ñu ngi fii fii la ñuy def suñu con suñu réunion conseil yi suñu engagement mooy fexe ba Fandène jëm kanam ñu ni ñi fi nekkoon liggéeyuñu wér nañu ni ñoom liggéey nañu ku ci nekk ak waxtam ñun dinañu liggéey bu ñu demee ñeneen continuer liggéey loolu lañu gëm mais fas nañu yéene fexe ba lépp luy ndox mu mën a dem ci kër yi lépp luy courant mu mën a dem ci kër yi nit ñi am yoon yu baax jigéen yi mën a liggéey mën a yore seen njaboot mën a éduquer euh, seen doom yi góor yi aussi mën a am xëy mën a yore njaboot yi loolu monseigneur mooy suñu engagement mbirum école bi ak mbirum wérgum yaram aussi bokk na ci chantier yi bëgg nañu ci mandat bi mu gën a tar ñu ngi ciy liggéey bëgg nañu aussi suñu xale yi yàgg naa di ko wax ñi nekk ci école yi mën a nekk en compétition ak bépp doomi ah doom élève boo xam ni mi ngi ci àddina parce que bu fekkente ni courant am na ndox am na yoon yi baax na xale yi am na ñu jumtukaay yi ñuy wax internet mën a wax ak ñépp mën a jàng toog sa kër mën a jàng loolu yaakaar naa lu am solo la bokk na ci suñu programme yi aussi donc euh, monseigneur en tout cas nga xam ni suñu engagement fii mooy fexe ba gox yi jëm kanam mënuñu lépp nag mais ñi ngi jéem te dinañ ci def suñu kéntu lay